màggal bi bi retour de la Mecque ngay ngeen di màggal macha allah te yàlla ñëpp xam na ne mu wax ne inna safa war mar wal marwata min sëñ bi dégg ko aaya bi xam nuñ koy dundee te léegi gis nañ ne puukare yi bari na journée bi noo koy defee ak ah, nan lañ si nit ki yan comportement la ko war a indi. ok jërëjëf euh, soxna Aysatu ñun nag yàlla dogal na moom ku xam jataay yi wala ku koy fekke wala nga di ko gis xam ne jataay la yoo xam ne occasion la boo xam ne saa yuñ ci tollee nit ñi sax ñoo ñu koy gën a yàkkamti gën ñu ko yittewoo ngir niñ koy doxale ndax minal day tàmbale ci sëriñ bi yam ci sëriñ bi mooy li may wax rek toolub lislaam bi dara génnu ci jataay bi ñuy def mooy niñ koy doxale mooy fii ma waxeek yow temb te yëggagunu ci li njëkk a doon suñu njëlbeenug liggéey ci li ñuy def mooy ñu ngi sas ay daaray alxuraan ci diggante tuubaa ak Njaaréem ak Ndakaaru ñi ngi sas ay daare alxuraan ngir ñu jàngal ñu ay limi kaamil yoo xamante ni si dana takku ñu mën koo jël def ko mu nekk tawféex yoo xam ne suñu borom dana ci dana ci dana ci defal yërmandeem boole mbindeefam yépp rawatina Sénégal gii ñu koy defee ndax daaw rek maa ngi fàttaliku téeméeri kaamil ak ñaar fukk ak juróom-ñett jàngalu nañ ko ci journée bi incha allahu rabbi lu man ñaari weer a ngi nii ñu santaane njàngum alxuraan moomu ndax bëgg nañoo am lim bu ëpp bañ amoon loolu bokk na ci li war a njëkk a doon liggéeyub léggéey njëlbeenug liggéey bi bu newee ba ci bis bi nag buñ xasee xëy rek incha allahu rabbi ba juróom-ñeenti waxtu jot muy 9 njàngum alxuraan bi mooy door ba tisbaar du am du du du am taxaw ay ay ay yu bari la ñuy am ñu sonn jóg ñeneen wutu leen ñuy jàng alxuraan ba ñuy julli tisbaar boole kook tamit duruus xasida yoo xam ne danañ ko def ngir am ay limi xasida yu takku ngir mën koo jox Serigne Touba akum njabootam addiya loo ne lañ koy doxale bu demee ba julli tisbaar ba noppi nag danañ amal ay bernde yoo xam ne dañuy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ndax nag sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ci benn xadis ne nga fekk mbindeefum yàlla mu xiif ba lot wala um, mu yittewoo ko nga jox ko aw ñam mu le nga leel ko ba biiram fees nee na benn pepp bu ci nekk fukki junni tuyaabay jaamu yàlla bu yàlla di nangu lee doon kon ñu nit lii ñuy def faaw ñu wut ay bernde jox ko mbindeefi yàlla yi ngir jaamu yàlla ci ci ci jaami yàlla yi bu ñu noppee ci loolu ba ñetti waxtu jot muy trois heures nag ci la ñuy commencé amal ay jataay yi waxtaan ay table ronde yoo xam ne wut nañ lu man ñeenti thèmes yu wuute yu wuute commission culturelle ñi ngi ci liggéey euh, ñu ngi ciy def liggéey yu am solo boole ko ay majjala yoo xam ne danañ du génne muy ay magasin ci dunduk ma Mouhamadul Fadal ak ajug màkk gi nam tëddee woon bu ñu àndeek ñoom nag ci jataay yooyu nga xam ne commission culturelle ñoo koy taxawu ci ay borom yu xam-xam tamit yu bu yu wuute yu ko war a waxtaane ngir ñu mën cee jariñu ngir askan wi mën cee jariñu waaye thème bi nga xam ne thème principal bi la ren te commission culturelle euh, jiital ko mu nekk ci kanamu thème yi ñu war a liggéeyee mooy jamono ji ñu toll yàqu-yàqu yi ci ne ak yi ciy xew nan la ci ndaw ñi mën a muccee yow loolu nag yaakaar naa ne ni ci commission culturelle liggéeye bëgguma xuus ci seen liggéey bu baax a baax a baax waaye niñ ci liggéeyee daal jàpp naa ne dana amal solo lool askan wi rawatina ñi nga xamante ne si danañ ji topp jataay yi fu mën a nekk bu loolu xewee ba noppi nag danañ fa amal njàngum xasida moo xam ne Serigne Khadim Gueye dana ko def incha allahu waaye danañ fa amal jataayu waxtaan boo xam ne kilifa ya nga xam ne ñoo war a ñëw teewee ko ndax ñi ngi fay séentu ay kilifa yoo xamante ne si danañ fa ñëw ci turu xalif général des mourides comme ni ko sëñ Basiru moom sëñ Abdou Khadir daan defee di ñëw di fa teew danañ fa séentu it njabootu Cheikh Mahamadul Faadal ci turu sëñ Abul Baraka waa daarul moxti danañ fa séentu yin waa mbusoobe séentu fa yin mboolem seex yi Serigne Touba yëpp boo defee jataay boobu nag dana doon jataayu occasion boo xam ne kilifa yi danañ jël kàddu yi digal ñu ñun ñu war a digal soññ ñu ñun ñu war a soññ ngir ñu mën a dégg seeni kàddu ngir mën caa jariñu ba bu ñuy noddu timis jataay ba mën a yemb ñu ñaanalante ba déwén ak jàmm waaye lu ko jiitu it ci la 15 bi danañ amal guddik Seex Ibra Faal goo xam ne dañ koy jagleel maam Seex dañ ko koy njukkale ndax sunu maam Seex Mamadou Fadal mi ñuy liggéeyal dafa defal sëriñ Touba loo dafa defal Seex Seex Ibra loo xam ne kenn fekku ko ci ndax néegu yàlla bi di jumaa yi Touba jël na aw màndarga jagleel ko ci Seex Ibra tudde ko ko waaye jël na ci doomi boppam dareeti boppam aw tur woo xam ne it dippee na ko Seex Ibra kon ñun bu ñuy lëggeel sëñ fa yi njëlbeen gi war nañ cee mën a bàyyi Seex Ibra ngir roy ko ci taalibee gi mu amoon ak pas-pas bu dëgër boobu nga xamante ne si amoon na ko te Seex Mahamadul Fadal it waxoon ne roy moom ñaar rek la koy def suuf ndax suuf dafa mën a muñ ak Seex Ibra Seex Ibra nee na ak taalibi lay roy ci moom kon loolu mooy njëlbeenug liggéey bi mooy la 15 guddik Seex Ibra Faal gi danañ ko amal ak suñ mbokki Baay Faal yëpp waaye bëccëgug la dim bëccëgug la sees gi nag muy dimanche boobu le 16 février jataay bi ci li ma mën a tënk daal nii la fas yéene tëdde soxna si nag lii ma la wax yaakaar naa ne jataay la boo xam ne ku ne war nga koo yittewoo ku ne war ngaa am yitte yi mën koo fekke ndax dara génnu ci sëriñ bi te sëriñ bi mooy diine mooy lislaam bokk internet yi yéen a ko déggandoo ndax kii dafa nekk sëriñ nekk sët toogul rek di laaj ay àddiya mi moom dafa jot ne day bay waaram ubbi toolam di bay pour li nga xamante ne moom mooy développement dëkk bi sëriñ nii lay mel ñitu yàlla nii lay mel di ko wax ne rek macha allah incha allah yal na si yàlla yóbbu ak jàmm yal nga ko attan lépp loo xamante ne yéen a nga si ma lay laajaat benn question boo xamante ne man neex na ma torop Euh, jeunes yi léegi ñëpp xam nañ ne fi mu toll dañu yàqu macha allah nga organiser journée bu mel ni est-ce que jeunes yi am nañ si wàll waaw wala déet. xam nga man moom ku ma xam-xam ne bokk naa ci ñi ñuy tudd di tudd Serigne Touba ci Ndakaaru ñi fi ëpp ak njaboot muy mbooloo waaye sama mbooloo mën naa ne ñëpp ay ndaw lañu boo xoolee ñi ma dar ñi ma àndal ñi ma def seen jëwriñ may seen kilifa ci lislaam ak toolub Serigne Touba bi ay ndaw rek lañu kon bis bi mën naa ne bu amee wàccuwaay bu ci nit di am man ci sama bopp yëg-yëg bi ma ci am mooy ndaw ñi ñoo ko moom te boo fa teewee wala boo ko gisee di nga xam ne ay jataayu ndaw la ndax occasion bi ñuy saisir pour mën a jël ndaw ñi xamal leen ne leen yoon wii mooy seenu yoon moo tax saa yuñ ciy liggéey bokk na ci yitte gi ñuy gën a yittewoo mooy xamal ndaw ñi ñu àndal ne lii seenu moomeel la ndax mbirum mbirum mbirum lislaam moo mel noonu lu taxaw ci lislaam la ko tàmbalee ci sayduna muhammad ba jamono ji ndaw dafa am solo ci lislaam tey it da cee am place boo xamee ak wàccuwaay boo xamante ne si mag mënu ko cee am ndax ndaw mooy taxawal lépp kon ndaw ñi nga xamante ne si topp nañu ma ak ndaw ñi nga xamante ne si yaakaar nañ sëñ Tuubaa te te ci ndakaaru ndax boo xoolee ndakaaru gi ñu nekk saa yoo demee ci gox goxaat yi ci mbedd yi ci koñ yi daayira yi ngay fekk ñuy yëngu ci lislaam di yëngu ci sëriñ bi boo xoolee ay ndaw rek la ñu doon kon wàccuwaay bi bis bi wàccuwaay bi ci ndaw ñi am yaakaar naa ne ñoom ndaw ñi mën naa wax ne ñoom moom bis bu ko defee nag mag ñi dañuy ñëw rek gunge leen ci jëmmal leen ci waaye liggéey bi dëgg-dëgg ndaw ñi la ñoom ñoo koy taxaw. ku dégg ni ngay waxee sànq ba tey xam ne sëriñ Touba jëmm ju baax jooju noonu fa mu tegoon tànkam dafa mel ni fa nga bëgg teg sa tànk te nee nañ sët yi bëri na macha allah te neenañ nañ sët bu nekk xam li ko war mu def ko fa mu waree dafa neex te li ma gën a neex si yow yar bi dal bi tee bi lan moo la gën a inspire ba nga toog ne man de damay màggal sama maam xooluma benn financement mais man may ñëw defaral sama bopp pour am ngërëm. jëf soxna Aïssatou yaakaar naa ne Serigne Touba mi nga xam ne moom moo ñu njaboote liggéey bi mu liggéey liggéey bu rëy bi mu liggéey ci lislaam ci ñaar fukki at ak benn la ko tàmbali nga xam ne li Serigne bi réalisé lépp ci lislaam ci ndawam la ko def ñu nit ñuy ay ndaw war a jël suñ dund gépp jox lislaam jël suñ dund gépp jox diine ndax bu buñ ko defee mooy li ñu war buñ ko deful it def nañ li li nga xamante ne si dañoo war te ñu fexe ba mu wàcc ñu te loolu du warteef ci ñun moo tax ñun bokk na ci suñu yitte saa su ne bu ñu xëyee ñu bañ a génn lislaam bañ a génn diine mooy bu ñuy dox ñu ciy dox bu ñuy wax ñu ciy wax bu ñuy jëf ñu ciy jëf bis bii ni nga ko waxee yaakaar naa ne loolu moom du du du du lu may waxal sama bopp seede si moom benn la ci ñi ko xam bokk naa ci bis yi nga xam ne ñi ngi koy organiser ci réew mi bis yi nga xam ne boo ci ñëwee yàlla kese nga ciy gis bis la boo xamante ne si yi yi xew léegi yu ci baree bari doo ko ci seen bis la boo xam ne dañ koy def ba mu àgg doo dégg ñu ne dañ koo pareneel diw wala dañ koo mareneel diw déedéet ñun ci sunu pas-pasu bopp ak sunu yittey bopp ak xéewal gi nu sunu borom jox mu néew mu bari ak njaboot gi ma àndal ñooy jël sunu alal jël ko delloo ko sunu borom mi nu ko wër wërsëgale te mooy ñaar yi ma wax ci sama biir yi kàddu jaamu yàlla ci jaami yàlla yi waaye lëggéeyal sëriñ bi ci xam loolu nag jàpp ne buñ ko waroon di def bis bu set ci sunu dund waaye sunu borom dimbale ñu ba ñu di ko def benn benn yoon ci at mi yaakaar naa ne saa yu ñëwee war nañ koo woo kon loolu mooy yitte ji nga xam ne am nañ ko ci di ko taxawu saa su nekk di ko def nga xam ne bis bi loolu rek lañ ci jublu wootewuñ ko ngir wut luñ ci am woote wuñ ko ngir da ci dajale dara dañ koy woote ngir def ci wartee foo xam ne daf ñoo war te buñ ko deful it war nañu te duñu wàcc bu mukk kon loolu mooy yitte ji tax ñu di ko def loolee nag dañ koy def ci sunu ngëm-ngëm ak sunu pas-pas ak sunu dogu ak sunu wóolu Serigne Touba mi nu njaboote Cheikh Mouhamadul Fadal mii sunu buntu ngir ñu mën a tabbi ci wa aqdil hawaa'ij allasiina daamu fi xidmatin wa hablahum maaraamu wa kullu man xaddamani aw saara fa najjihi wa ixfir lahu aw saara ji sëriñ bu mag bi dikk mboolem ko koy liggéeyal ñu nit foofu rek la ñu teg sunu tànk ba ñu am yittey nekkal sëriñ bi te bañ a nekkal sunu bopp mbokk internet yi ku dégg Mbacke Mbacke Balla Aïssa xam na ne moom deful pour poosam mais dafay def pour suqali ndaw yi te dañu ne dëkk ku koy defar il faut nga xëcc ndaw yi teg ci sa bor Mbacke Balla Aïssa lii xew ci sunu société pour nga def ci benn entre parenthèse ndax dafay am cérémonie officielle ndax yow yaay defal sa bopp cérémonie officielle bi ak kan moo lay jàngal guddi googu noonu wala journée bi. waaw bokk na ci liggéey boobu lu ci jiitu mooy lu jiitu bis bi am nañ ay jataay yoo xam ne am nañ ko ak comme niñ ko amee yow nii tey am nañ ko ak ay télévision yu ne ci réew mi ay jataay yoo xam ne ay plateau spécial la yu ci ne wutal nañ ko ay thèmes yoo xam ne dana amal société bi njariñ amal ndaw ñi njariñ rawatina Sénégal gi nu yewoo ngir waxtaane lan moo mën a doon sunu njëlbeen ci nekk ci li ñu war a nekk ak sunu mujj ci mujj ci li ñu war a nekk loolu it bokk na ci liggéey bi nga xamante ne si commission culturelle liggéey na ci ànd ko ak finance ci anam yëpp incha allahu rabbi bu nemee ba ca bis ba it mooy li ma wax léegi rek cérémonie officielle bi moom mooy jeexal bis bi cérémonie officielle boobu nag ndawal sëriñ Muntaxal Basiir dana fa nekk ndawal sëriñ Abul Baraka dana fa nekk njabootu sëñ tubaa gi lislaam bi bàyyiwun kenn boo ñëwee ñëpp nga fay fekk ndax ñun ñëpp lañ amal jàmm ndax lislaam bi benn la boo ñëwee ñoom ñëpp a fay ne autorités yi ña nga xam ne fa ñuy defee loolu seen gox la soxal na leen ñoom it yëgal nañ leen te ñoom it bu ñu teewee teewal nañ fa ndawi ndawi ndawi ndawi nguur gi su ko defee loolu nag mënta ñàkk buy fekkente ne mooy jeexal liggéey bi cérémonie officielle boobu it dana am message boo xam ne faaw man mi nga xam ne maay responsable moral war daayira wal baladu tayyib ak kuréel ànd liggéeyal Cheikh Mahamadul Fadal fédération euh, danaa ko joxe te bu ma koy joxee it ndaw ñi laa koy livrer ngir ñu mën cee jàpp ba dewee nag jàmm incha allah loolu it ñu ngi ciy liggéey ak commission culturelle bu soobee yàlla fa yéene cee taxaw bu baax a baax a baax ndax jamono nag comme ni nga ko waxee tollu na foo xam ne yàqu-yàqu yi bari na dëng-dëng yi bari na njuumte yi bari na waaye naka lañ mën a gàttanoo ndaw ñi ba ñu mën a ba ñu ba ñu ba mën a bañ a tàbbi ci PS yi am léegi rawatina yi nga xam ne yu bëree baree baree bari ñu koy def dañ koo def ngir lislaam ni muy doxe ak ni jéego yi lislaam yi yaatoo ak ni mu gaawee bokk na ci li leen di déranger ba tax ñu bëgg di gàttanu ak di këf ndaw ñi nga xam ne yitte woon nañ lislaam ak diine ñu nit lu mu leen jaral war nañu ko mën a jaral ba sunu mission yit li def ci sunu dund ñu jeexal ko ci loolu lool it ñu ngi ciy liggéey bu baax incha allah. Eh, Mbacké Balla Aïssa tey jii l'émission tire à sa te bëggoon naa góor yu mel ni yow borom leer yi borom barke yi macha allah nga wax yow yaay kan wax fi nga xamante ne moom nga cosaanoo ak ku la soxla yow fan la lay fekk exactement ndax say buntu ubbil nga ko ñëpp waaw wala déet. jërëjëf ñu ngi sant sunu borom bu baax ci laaj bi ñu laaj yaakaar naa ne sax dana jafe ci ñu wax ki nu doon waaye ngir bàyyi xel mbokk yi topp Ndayane bi yëpp ngir ñu mën a xam tey gan gi nga amal gi nga seqal jataay bi ki mu doon. xanaa ñu tënk ko ci benn tomb rek mooy ñun ñooy ñu ngi tudd Serif Ousseynou Mbacké di doomi sëriñ Ateex moom seex Mouhamadul faadal moom Sayxul Xaddim waaye sunu wayjur wu jigéen it di soxna Daba Bousso moom sëriñ Mor Roqaya Bousso moom sëriñ Seexu moom sëriñ Bousso be waaye sunu wayjur wu jigéen it soxna Daba Mbacké moom maam Cerno Ibra Faati borom daaru jur ko ñu soqi ko ci ñetti kër yi nga xam ne ñooy yoon wi te kenn mënta tudd yoon wi te tuddoo leen muy sëriñ Touba mi njaboote Cheikh Mouhamadul faadal waaye sëriñ soobee mi nga xam ne mooy càmmiñal soxna jaara waaye borom daalul muxti mi nga xam ne mooy rakki sëñ bu mag bi kon noonee la ñu sëñ Tuubaa sagale ba boole ñu ci boppam ñu sosoo ci moom sosin yi ñu ko nii ñu ko waxee ñu sosoo ci moom noonu loolu nag bi loolu xewee te muy tawféex ju ñu rëy ci ñun nag dañu koo delloowaat ca la sëriñ Fallu defal boppam ca ba Seex Ahmadou Bamba waxee waxam ju siiw ja mooy sëñ Fallu daa jaay ak njureelam jëndeek taalibe ñu nit ñu jaay sunuy cër ak sunu lépp jënde ko ak taalibe loolu moo tënk ci ñu nekk taalibe sëñ Touba tout mën nañu koo génn ngir nekk ci sëriñ bi rek ci tënk daal ciw askan ñooy mbokkum yoonu murit gépp comme ni ko Cheikh Mouhamadul faadal doone waaye it ginnaaw bi ñu doonee loolu ba noppi nag sunuy kilifa nag waajal nañ ñu ci anam yépp ci fànn yépp li ci jiitu te te nekk njëlbeen gi mooy alxuraan moom mi ngi ci sunub dënn te sonn nañ ci nekk nañ ci fukki at ak ñett yoo xam ne noppi wuñ ci ca ban ko mokkalee des nañ ca bind nañ ci it lu toll ci juróom benn kaamil yoo xam ne am nañ taw feexu jébbal ko doomi sëñ Touba ak xalifa Cheikh Mahamadul Fadal ak sunu wayjur sëriñ Atex Mbàkke Falilu bi ñu noppee ci lool yi mbooleem fànni xam-xam yépp sàkku nañ ko ba am ca lu kawe sunu njort waaye ñu continuer yi di woyal sunu gëstu ba fii ñuy waxee ak yow noppi wuñ ci xam rek ñu ñor moo ñu te loolu ku nu xam di nga ko xam ci ñun waaye it mission bi mujj ci sunu dund mooy nekkal Serigne Touba ci lislaam ak diine waaye jaare ko ci ndaw ñi nga xamante ne si lii ma la wax rek moo ci nekk bu nu njëkkantewul ak ñoom ci ñi nga xam ne lislaam jaaxal na leen ba lu ne ñu ngi koy def ngir ngir nasaxal ko ñun ñu fexe ba jàmmaarloog ñoom ba lu mu leen jaral mu jaral ñu ko loolu it war naa bokk ci yitte ji ñu gën a yitteel ñun moo tax ñu nekk ci loolu ku nu soxla fu ñuy fekk ñun nekkuñu fenn fu ci réew mi ak euh, bitim réew léeg-léeg yàlla dogal dana ñu génn di dem ci fu bari ci àddina bi ngir njaboot gu nu fa am xam naa ne mbokk yi moom liggéey bi ñi ci bokk te ne ci diaspora bi bari na lool foo dem ci àddina bi muy Italie muy France muy Espagne muy Belgique muy Allemagne muy Brésil muy Argentine euh, kuréel ànd liggéey Cheikh Mouhamadou Fadal bi nga xam ne mooy fédération daayira wal baladu tey bu te mu jiite leen am nañ fa mbooloo mu fa nekk kuréel gu fa nekk goo xam ne am na ay jëwriñ ñoom ñëpp it ñu ngi bàyyi xel liggéey bi bu ñu nekkul ci réew mi daal ñu ngi foofu amal ak nekk ak ñoom di am ak ñoom ay jataay di ay jataay yu conférence di waxtaan ak ñoom ci diine ak lislaam ak yoonu murit ak njàngalem Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul kon bu ñu nekkul ci réew mi ñu ngi foofu waaye li ëpp daal ci sunu nekk fii ci Sénégal la moom muy ndakaaru gi nga xam ne fi la tool bu mag bi nekk ci fi ñuy bayee ci sëriñ bi waaye Touba nag mooy sunu kër gi nga xam ne lu mu gudd guddi fa la ñuy fanaan incha allahu rabbi mbokku internetu Ndayane TV yi yéen a ko déggandoo kuy sa maam nga ne Serigne Fallou Mbacke ñu ne Balla maam Mbacke Balla Aïssa mu bokk nag si famille musóobee te ku dégg musóobee xam ne ay kàngam lañ ay xaafis dañ si wàllu alxuraan mu nekk ndaw ndaw lu mat ndaw nekk ndaw ne moom turu yàlla lay dunde moo tax góor ñi rek nee naa nañu delloowaat suñu xel ñu delloowaat ko rek ci waxi yàlla ñu jox ko nag turu boo xamante ne fédération wal bala du tayibu la yàlla wax si wal bala du tayibu leer na tool la tool la boo xamante ne dafay meññ lépp lu baax muy yaakaar xéewal ak barke góor ñi nag fa lañ koy delloowaat ndax ku jur lu mel ni bëgg lu mel ni Lamp Fall defe naa ne di nga takk jigéen ju baax jigéen ñi nag nañ mel ni soxna jaara ndax soxna jaara moo fi liggéey liggéey bu tooy nii bàyyi fi way wi nga xamante ne boobu ba léegi ñu ngi waxu soxna jaara di ko wax Mbàkke Balla Aysa sa dernier mot nga ñaanaale ñu ñun ñëpp ndax ñëpp a ngi sàkku sa ñaan du yoon sax toogax kilifa gu mel ni yow di yëkki kàddu ndax kàddu gi matale na kàddu gi jotale na di la ñaan rek kon joxeel kàddu nga tàggoowaale soxna si ñu ngi amaan mbegte bu baax di la sant yow it cant gu sori ci sunu xol ci jataay bi ni mu tëddee ndax euh, am nañ mbegte ak bànneex lool ci jataay bi ni ko doxale ndax jataayu xam-xam rek la te lépp ci yow la bawoo ñu la ciy sant bu baax nag te di ci am mbégte te di la ñaanal sunu borom mu gën la kàttanal dëgëranal la sàmm la it dooleel la bu baax ci mission bi nga xam ne da nga cee nekk te mu bokk ci toolub lislaam bi di sant mbokk yi nga xam ne it ñoo yor kër gi te di ko saytu te yàlla sunu borom boole ñu ak ñoom lu ko njëkk ñu leen ciy sant bu baax Euh, bari nañ lool waaye buñ ci tuddee sëriñ Moustapha Seck mi nga xam ne moo taxawul liggéey bi ba lii am buñ ko ci tuddee rek yóbbaale nañ ñëpp ñu ko ci sant ñu leen ci sant bu baax di wax ne sunu kër la ndax euh, tur wi moom kiñ ko jox wala kiñ ko tuddee sunu maam la ndax ki jur sunu woy jur wu jigéen doomi borom daalul moxti la di rakk ci ki ñu tuddee kër gi nga xam ne tey ci la ñu nekk di wax ak mbokki jullit yi ngir ñu mën cee jariñu kon ñi ngi sant mbooloo mi fi nekk yëpp di ñaan tamit sunu borom def ci barke borom tur wi it téyal ko boppam ba mu àgg fépp fu ngeen bëgg mu àgg fa ci doole yi Serigne Touba Xaadimu Rasuul di wax ne tamit suñuy partenaire lañu ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey te noonu lañ fa yéene ànd ak ñoom ci anam yëpp incha allahu rabbi muy li ñuy waajal la sées buñ ko rombee it war nañoo dem Argentine incha allah war nañoo dem Brésil buñ fa jógee war nañoo dem Espagne ak Paris loolu lépp it incha allah ñaan nañ yàlla ànd ko ak yéen ngir mën koo wane ngir mbokki jullit yëpp man koo bokk jariñoo ko incha allah rabbi ñu ngi doon am mbégte bu baax daal participer ci jotaay bu am solo bi ànd ko ak soxna su tedd si di wax rek ne luñ fi wax te muy lu dëng xam leen ne sunu matadi rek la ak fii ñu toll ci xat-xat yi ak tolluwaay yi ñu nekk rek mooy sabab bi waaye lu ñu fi yéene woon it te wax ko te muy lu jub lu ñu lu ñu lu ñu bëggal sëriñ bi te muy lu baax rek la ñu ngi jox mbokk yi dox daje ba beneen yoon ak jàmm incha allah wa aaxiru daxwaana anni alhamdulilahi rabbil alamin mbokku internet yi yéen ko déggandoo yu ndaayaan TV yi ñu dalal góor gu mag góor goo xamante ne mag na góor bokk ci njaboot gu sell njaboot gu mbàkk gu baax ñu naan mbakke Balla Aysa kii la fi maamam liggéey liggéey bu rëy bi muy Serigne Touba Mbacke moom mu ne man du ma toog di si di tiitaroo Serigne fàllu Mbacke dama yëkki sama drapeau fu mu teg tànkam ba eggali fi eggali mission wam moom ma tax a jóg di ko wax ne Mbacke ball mission bi yal oyof yal na yet bi oyof si kaw mel ni mbaxane bi nga xamante ne moom nga sol macha allah di leen wax ne mbokk internetu ndaayaan TV yi journée bi bu leen ko tardé ndax xam-xam incha allah la fay waxe lépp loo xamante ne yoonu murit ak yokkute mburit lépp loo xamante ne sëñ Touba liggéey nañ ko sëñ Fallou liggéey na ko jële ko si tukkeem bale andil ko moom mu ne moom du ko denc da koy wan ñi dëkk bi wan ko société bi kon mbokk internet yi dama leen di wax rek bu leen bàyyi sit bi Facebook bi ak lépp loo xamante ne ndaayaan tv point com daf fay daw ndax kii dong moom moo jor a wane ndax lu baax rek lañu war a wane kon Mbàkke Bàll bu jubee xamal na yàlla la bu dëngee nag asuma doye di mii la di joxe rendez-vous ba journée ba incha allah yéen ñëpp waajal leen ko def leen lu yiw ndax borom journée bi jar na ko borom guddi gi jar na ko kon macha allah ba banee yoon incha allah yal yàlla moo tëli lépp